waaw xale yaa ngi noonu di wax daal. daw du sàggan. léegi ñu dugg si yoon. wànnaani. xale yi Serigne Mokhtar Diagne. suñuy dogal. suñuy dogal. léegi dugg si yoon. tekki woo dara xamoon. ñu teewlu leen jàngil ñu ndaw ñi jàngay jaare ñu suñu réew mi ak def ñoo yore réew duñ la nawloo war naa ne bu ñuy dogal duñ la woo Moussa am na solo lool ni ngeen duggee message bi ngeen doon jàllale yaakaar naa képp koy ndaw rasama jaba katif sudur amam tar yamin daw yamin daw yamin daw amam tar ila sama jaba katif sudur amam tar yamin daw i'tidal i'tidal i'tidal awalan sala

jàmm dem fi ñaw tey lépp ko yàlla ful sotti ko ci seen kaw képp ku fi ñaw yal na yàlla nangu ñaan nee leen amin amin amin nee leen amin yal na yàlla nangu ñaan nee leen amin amin amin nee leen amin yal na yàlla nangu ñaan nee leen amin amin amin nee leen amin yal na yàlla nangu ñaan nee leen amiin amiin amiin nee leen amiin yal na Yàlla nangu ñaan nee leen amiin amiin amiin nee leen amiin yal na Yàlla nangu ñaan nee leen amiin amiin amiin nee leen amiin yal na Yàlla nangu ñaan nee leen amiin macha allah jërëjëf Pape Moussa sa rafet na lool xale seen ñaan gi am na solo lool yàlla sama borom subhanahu wa taala nangu ñaan qur'aana ngi mbaxana yi ñooy waa ahlul quraan ñi ñëw moo kel baqara ba naas borom mbaxana yi rafet yi ak borom kol weex yi macha allah ko akbar gi yu akbar xarfu ya na aw na waa baas ñëpp aw qur'aan a ngi kemtal ya bari la jàngu ko mag yu ashrul sa xarfu ya macha allah jóg na jaaw yàlla na la say aaya yi mu mooy sa kër sa kaanangi kemtaan ya bari na jàngu ko maggi yu sa xarfu yaa kemtaan Allah jërë ngeen jëf xufaas yi ma ngeen toog seen barab bi leen wutal foofu yeegi noonu toog ci kaw jàkkaarloog ñëpp seen col yi macha allah di couleurul islam di symbolise couleurul islam muy bu weex tàll bi waaye ak bu wert woowu xale it seen tatagal yi am na solo lool neex na lool. kon mbokk yi dañuy jàll rek ci programme bi direct xam naa waxtu takku saa sax mel na ni dugg si na waaye fu mu ñu fekkee rek ñu daal di dagg daal di def.